maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunna yi sama kóotaat yu ñu jubal yi te ñuy woy jubale na ngeen ci jàpp bu dëgër na ngeen ko màtt ak seeni dëgëj maa ngi leen di wattandikuloo bir yi ñu sos te lépp lu ñu sos biddaa la te biddaa yépp ak réer la xaddis bi abu daawud moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa il mahdiyiina arraashidiina tamassakuu biha wa addu alayha binnawaajis wa iyaakum wa muxdasaati al umuur fa inna kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala rawaahu abu daawud liman